Wow, waaw tak naaw la de takk naaw la ilaa Touba de màggal màgg waaw waaw fi ne nii damay màggal maam Seera Fall le 6 octobre fii ci Allemagne ñu ngi ci woo kulub Baye Fall ak kulub Yaay Fall ak murit saarix ak bépp jaamu yàlla bu nekk fii ci Europa wala bu nekk fii Allemagne ndax dañuy màggal te màggal gi dañ koy màggal waxtu màggali waaw waxtu màggali jours sept heures set heures sept ñu setal màggal gi man ndax dañuy takk dem Touba amuñu xaare amut nege képp ku war a ñëw ci màggal gi na nga xam ne sept heures mat na la fa des nag moom mooy ñoqale bëtt ko lu tanal ilaa Touba daal di ànd nag ak yàlla di sant yàlla